xaru tabaski amul saarit mag ñi xam-xam soriwut dafa làqu gis nga xaru tabaski dañ ci daan regle seen situation àddina ba lu ñu dëkkmal du leen jaaxal lu tax amul saarit parce que jëmm la am comme ni ko xamee mais jëmm ji lu mu ci doon am na njariñ lu koy xaar ba njëkk mooy xar mi bu ñu ko yeewee ci gétt war ko rendi ndox mi ñu ko mujj jox mu naan saa yoo rendee sa xaru tabaski ba pare sëñ daara paaka bi nga ko rendee boo ko fompee ba pare da nga ciy bind iqra bismi rabbi fulaan boo paree nga jël paaka bi sànni ko ci ndox moomu nga mujj wëgge xar mi mën nga ko garder xale bi xelam naqari te nga bëgg xelam neex dee ko ci xellil kaas muy naan bu dee bésu alxames ak àllarba moo gën ak altine dañuy wax ne ku koy def kiis gënu ko kawe loo jàng doo ko fàtte beneen bi ci topp moo di xar mi bu ñu ko rayee ba pare res wi mag ñi danañ koy fonk lool di ci bind mudd hamataan boo ci bindee mudd hamataan nee nañu nga saaf ko walla nga lekk ko nga nga lakk ko lekk ko caabi kaso du la féete gannaaw mudd hamataan beneen bi ci topp moo di béjjënu xar mi dinañ ci sol suuf si mu tëddoon biñ koy rendi ba muy waaj fees nga wut saabu tëje ko ko boo amee géttu xar bañ nu sàcc ko def ko fa boo amee nàkku dëj boole ko ci boo amee palaas bëgg palaas bi ñëpp xam ko maanaam mu am bayre siiw wutal béjjén bi nga wut ca suuf soso nga sol ko ca wut saabu tëje ko ko boo amee nakku dëj nga def ko ca place ba dina am bayre te dina mucc ci ñu jëlal la sa gannaaw même suuf soosu mu tëddoon moom xar mi bi ñu koy rendi muy wéq suuf soosu ëpp na di doyadal wut ci lu bari teg na le ku ñëw ci yow bëgg nga ñaanal ko bayre maanaam nga njarata njarata sàkkal si suuf si jox ko lépp looy jaay boo ko ca wisee dina jar incha allahu xar mi amul saarit am na lu ñuy tuddee sébbirit mooy mbàq gi nee naa gas kepp képp lañ ci xam or que dafa am lu ñuy tuddee cat koo dem léegi mun la catal a jàpp wala bët bu bëtoo la jàpp walla dañ la jibar wala nangam solution bi dara gënu ci foor wut mbàqu xaru tabaski weer ko ba mu wow boo ko weeree nga wut sungufu gollañ wut sungufu xay nga dëbb ko ba mu jaxasoo kooku garde ko rek mooy sébirit si mooy sébirit si mooy li mbàq gi téye mooy cabinet yi cabinet xar mi loolu ñuy tuur di ko ratal di tuur loolu ngay jël waxuma li ci butit yi de li ci mbàq gi waaw loolu weer ko mag ñi dañ ci daan garder saako Haj Maodo bëri waa ku kuñ jàpp nga jël ci tuuti def ko ci ànd suur ko ci ku ko musa laal dana ko wax bëri waa na nit ku naan dafa jëfur sax fekk na dañoo suur loolu mu noyyi ko soriwul de affaire bi soriwul de mu ngi ci xaru tabaski beneen bi ci topp mooy gis nga xuuru xar mi mooy kuraay fajkat boo dem faiblesse sexuelle faiblesse sexuelle faiblesse sexuelle nag dara waralu ko bu démb maam yeeg yooyu xamuñu ko woon te ñeenti jabar lañ daan yor soxna su ci nekk am njaboot gu bëri ñun ku ci yor ñaari jabar jàmbaar nga boo ngéntee balaa ngay woote waat ngénte kenn du xam kañ la waaw li ñuy lekk baaxul mais li ñuy xool baaxul li ñuy lekk baaxul li ñuy xool baaxul mag ñi bu njëkk pour seen beut teggu ci xawray jigen jafena ñun nak da ngay xey di xol bo force da ngay xol force da ngay xol bo genné rek di nga té lolu da fay wañi ngóora manam sa beut di teggu ci parti intime jigen bo xamné xam nga ni do ko gaaw gis mais sa beut mujj chaque fois mu teggu ci day wañi ngóora waay waay waay Maodo ki ko musul gis xoolal bu ko gisee rek waaw léegi nag faiblesse sexuelle boobu fajkat yi nga xam ne foo dem dañ koy faj lii ci gën a gaaw baxal ko rek xuur yi boo koy baxal xorom rek doy na ci tuuti nga ciy def boo paree nga lekk ko naan tuuti ca ndox ma denc ko boo ko dencee kaas suba kaas ngoon kaasu attaay rek nga ciy jël li nga ci baxal muy tollook un litre bu jeexee bul demati ci benn man ma euh, benn fajkat bul dem ci benn fajkat jàmbat ko loolu doy na sëkk mag ñi dañu wax ne ku ko def deetoo tëleeti ci sa giir gi dund moo tax loolu noo ñaar yi ngay boole waaw ñaar ñaar yi ngay boole mais ku koy def da nga euh, waxuma célibataire def ko de célibataire moom warul yoolu warul doon kam bu dee sérieux na hmm? waaw gis nga xaaj Maodo gis nga xaru tabaski amul sarit, xaru tabaski amul sarit haj mas, Bobu jotuñu cee gindiku olof yi dañuy wax fàtte gën fen waaye nañu xam ne yii ñu fi bu ci nekk rek am na un litre d'eau soo ko baxalee ba pare kaas suba kaas ngoon bu jeexee jarut ngay demati feneen non non jaru ko lu ne la tuuti nga ci sànni xorom rek genre supp la ah moo ngi noonu tabaarakallaahu xaru tabaski moo amul saarit kiis la cat la gis nga li gën a garaaw ci cat mooy liñ la wax nii ci jindi cat sébirit si sungufu gollañ sungufu xay lu ko gën a gaaw ci dindi cat amut boo koy suuroo cocc ngay def te bëri waa na loolu dul ñime xaaj Maodo am na ñoo xam ne seen loxo yi dañuy wax ne fu ñu dem ñu leen loxo bu bënn la maanaam mënul téye dara loolu dajale mu dem bu ñu rendee xaru tabaski ba pare fi fi xar mi tëddoon deret jooju jëlal rekk raxasu ci raxasul si deret ji yow noppi nga ci loxo bu bënn te kaay ma wax la dina la muccal ci bëy maanaam loxo bu buy newwi am loxo baaraam yi neweek yooyu dala ciy muccal moom deretu xaru tabaski boobu boo ci raxasoo deretu xaru tabaski dinañ koy jël di ko fomp ci ndëggu tànk boo ko fompee ci ndëgg tànk ku tibb sa tànk dina daw ku tibb sa tànk rek bu àkk siwul ci yow du baax ci moom ku ko def kenn du tibb sa tànk xaj Maodo te dañuy wax ne sax boo ko defee bépp liggéeyu tànk bu ñu la defoon yàlla dindi ko moo tax yooyu ay mag ñi nag seeni mbir la yaatu na gën na yaatu lool waaye tabaarakallaahu ñu tënk ko foofu xam na rek tabaski moom amul saarit lépp njariñ la waaye nag amul i waree nañ ci bàyyi xel tabaski amuli waref tanku njëkke tanku bajjen tank walaysa alayhi bi wajib amul ay waref dinaay wax ne gaay yi def passante la rek na ñam ci sa xar nga ñam ci sama xar la masfal am nga xar am na xar numay may sama pojo xar di ko jox wala makoy jox sama dom bi fay sey pour lan la lolou waref la amu ci amul tanku bajjen amul tanku njëkke kenn du ci jaay dara bo gisee ñu ni kenn du ci jaay dara Moy lepp day njariñ bol xewlo ndawal gi saraxé liñ ci saraxé denc liñ nga denc yeneen ci dess yépp bu ne njariñ la té yonent bi né tabaski der bi sax boko amu amo tabaski deru tabaski ku ko jaay li gëna derbi ndaw muy der bi amulo tabaski lo ci def kay saraxel wala nga dundé yak sa njabot mo ngi nonu légui li ñuy def moy, pratiquer rendi bi ci bopom rendi nak bala ñuy pratiquer dañuy wax rendi moy dag ak buli gis nga xar mi ku ci nek bu ko xole ci bopam gis ko li modi di buli li li moy ak buli li lañuy rendi amna ño xamne li len duggal ci rendi moy sadik sadik sadik sadik lu ba wa koñ bi di len jox nan wol diw mu rendi la fekk na mënul rendi dafa sa soxor rek ñew rek tas dem yonam bari waana na xar mu ñu rendi boo mu jog fekk na bu ñu daggee dafa am ñaari sidit yuy accompagner burit gi moom la wax wada jey ni asabu xatqul qulquumi wal wada jey rendi mooy dagg buligi, ak ñaari sidit yi mu andal, boo daggoon buli gi dagg benn sidit bàyyi benn bi boy bàyyi xar mi muy jóg di dem moo tax gis nga bu la masalan nga koy rendi moo gën a parce que ni ni buli gi ndawe baat bi ndawe ni noonu la mën a dencee ñaari sidit yi boo koy rendi da koy denc ci ginnaaw buli gi man nga dagg foog ne jeex na boo koy bàyyi muy jóg moo tax ñiy rendi ginaar muy jóg di dox kenn xamul nu mu toll boo koy rendi da ngay làmbatu ñaari sidit yi ba jot ko boole koog buli gi daggandoo leen boo ko bàyyee rek deetul dem xaritam noonu lañ koy def xam nga lu tax xar mi boo ci tegee paaka bi rendi fekk na am na sidit gu daggul nga bàyyi ko mu jóg dem wala mu nam jóg nga tëraat ko boo ci tegaatee paaka bi kenn du ko lekk kenn du ko lekk am na ñu koy def nag lekkati mbedd yi bëri na de paaka bi même boo ko tegoon ci buli gi dagg tuuti ci buli gi paaka bi dafa damm wala amatul ñaw ka nga bëgg a paaka bi paaka boobu doo ko yëkkati ngir andi beneen paaka boo ko defee rek loola kenn du ko lekk paaka bi day fekk paaka bi ngay andiwaat day fekk paaka bi doon rend ci baat bi ñoom ñaar